éclairage yi moo jox dafa may inspiré benn affaire affaire euh, xam nga comme en situation Pa Moussa nous hmm. en situation exceptionnelle oui, mesure, mesure exceptionnelle, euh, la théorie des exceptions en droit hmm. effectivement euh, xam nga quand on est dans la normalité le Conseil constitutionnel di le droit hmm. mais comme on est dans une forme d'anormalité situation exceptionnelle oui. le conseil constitutionnel va même au-delà de dire le droit il fait dans ce qu'on appelle le management juridique management juridique très bien en quoi le management juridique le conseil constitutionnel va faire euh, ce qu'on pourrait appeler la médiation juridique mm. ou l'arbitrage juridique parce que fi mu toll nii euh, conseil constitutionnel 19 candidats yi la amal affaire. Hmm. ak l'organisation étatique l'administration et donc moom lu muy def rek da koy euh, waxtaane da koy pencoo pencoo ak les dix neuf candidats maintenant comme one est nañu ci les délais de la légalité hmm. dans la zone du droit on ne peut être que dans la zone euh, de la médiation, de la médiation. et de l'arbitrage j'allais même dire du médi-arbitrage juridique et c'est pour ça que je dis que le conseil constitutionnel mmh. n'est plus dans le droit mmh. mais il est dans le management juridique Hmm. parce que droit rëcc nañu. ba pare rëcc nañu ba pare. waaw nan la ñuy def. Hmm. ba du ñu ko sori trop trop trop trop trop. <laughs> xam nga organiser ko ba budul droit si muy nduru droit. <laughs> xam nga voilà et ça il faut ci man juridique. Hmm. merci Pape Pape Moussa. Pape Moussa <laughs> merci beaucoup. waaw Pape Ousmane ni eh. leeral rek ne conseil constitutionnel ñaari décision la génne. parce que bi ma mm-hmm. sànq maa ngi naan la euh, parce que il fallait aussi euh, vérifier pour xam. Mm-hmm. Euh, moo di ne euh, deuxième décision bi c'est suite à la saisine des seize candidats des seize candidats de l'opposition ah oui d'accord déclaré recevable ba noppi daal di proposer la date du 31 mars donc proposition la loolu mooy. pour waaw dafay fekk si li Pa Moussa doon wax ni du seen prérogative. mais quand tu dis le texte c'est fixe la date de l'élection au 31. absolument liggéey ni peut être waaw jàpp na date avant le 24 et tout euh, peut être que dafa euh, génne décision bi en prenant en compte le fait que. Mm. joxeegul woon. Mm. une date pour l'élection présidentielle. attendons de voir déjà ak. Euh, lii président jël ci conseil des ministres suñu xool ndax euh, dina euh, dingi mhm. boobee euh, décision nga xamante ne ni jëloon na ko gannaaw. nous sommes pas no loin des surprises. Mhm. oui oui non hmm. lii dafa lay expliquer benn benn en arrière plan. Hmm. xam nga suñu réew yi bu daan dox dans une normalité. conseil le pouvoir judiciaire da daan yóbbu le pouvoir exécutif. mais léegi chevauchement yi di am ni. Hmm. da leer ni ku ci nekk da ngay dox sa dox léegi. ça veut dire qu'on tend vers les démocraties majeures quoi ça veut dire que le, le pouvoir judiciaire mm. euh, n'est plus une autorité maintenant c'est un pouvoir indépendamment de ce que va décider l'exécutif mm. moom il suit son chemin comme disait Karl Jasper nga jox ko ban moom conseil constitutionnel ah, parce euh, ci at yeeg ci euh, weer yeeg euh, le le le le conseil conseil constitutionnel aura été le plus grand gagnant de tout ce tohu politico juridique ak loo ko mënta xalaate <laughs> euh, s'il y une institution ou bien euh, une partie qui en a le plus sorti son épingle du jeu mm. ce n'est ni l'opposition encore moins le pouvoir mais c'est bien le conséquence constitutionnel dina ko doon man bu doon nii président xamoon na ne du dem desoon na ko def beneen mandat euh, waaw ma laaj laajoo euh, kii non non yaakaaruma ko c'est-à-dire ah. que dafa am pour man sax waaw. Euh, laaju laaj. <laughs> non non non da lay dugal Ousmane dafa garaaw de Ousmane naka garaaw maa comprendre Ousmane <laughs> xamul ni man damay nekk Saraba daal leen team Sénégal di gis ni muy ruubee gars yi quoi ma naan bi bii aka garaaw kii moo tax bu may jógee Saraba ñëw damay takku diw xoolal débat débat bi fi mu ne damaa takk téere ba bii. di la def nii rek léegi da ngay da ngay da ngay léebu sax <laughs> léegi damay léebu. parce damay dër <laughs> sinon Ousmane da lay dugal et puis xoolal effectivement c'est là où l'important cest à dafa am benn affaire bu xew Sénégal te gars yi bàyyiwuñ ci xel hmm. dépassé na sax Macky Sall ay hmm. troisième mandat c'est une révolution silencieuse au Sénégal et cette révolution silencieuse là a traversé toutes nos forces vives hmm. lay bax ci justice mooy baax ca force de défense sécurité mooy baax université mooy baax secteur économique mooy baax secteur privé mooy baax ci Sénégal maanaam cette révolte intérieure de ce que j'appelle le mouvement révolutionnaire. Mm. Le mouvement révolutionnaire qui veut un Sénégal autre, une justice autre, un pouvoir exécutif autre, oui. un pouvoir législatif autre, mm. un secteur privé autre, un corps des enseignants autre, un syndicalisme autre. gis nga loolu nag dafa imprégné te loolu euh, bu la neexee nga ni départ na ci corps de la justice. si avant hmm. on parlait d'autorité de la justice en réalité aujourd'hui jàppal ni justice tey moom na boppam. quel qu'en soit le régime bi fii ñëw. am na ci ay affaires yoo xam ne xoolal yëfi boppam lay. lu ko ci aidé. waaw ko aidé. waaw parce que mosuñu woon natt ni ñoom mën nañoo demal seen bopp sans président c'est-à-dire que ni ñu tëggee suñu réew yi dañ leen a yàgg noor ba nga xam ni suñu xam ni ñoom ndekk mën nañoo dëggal seen bopp. Hmm. est-ce que comprendre la léegi nag xam nga ab ragal hmm. bu ngeen xeexee ba mu ñeme rek tey nga dee <laughs> boo génnee ci bopp koñ yi mu ne taxawal cooy aju cooki léegi nag xam nga lu ñu euh, moom moom mooy li li li li li li li pakot yi naan ubbi lu ñu. Euh, lu ñu tëjoon waaw. xam nga muri lu ñu muuroon simpi lu ñu daajoon. Hmm. ça veut dire que désormais et puis souvent nga xool ni dans su suñu administration. de manière hmm. générale à Sénégal ya a y a y la jeunesse qui arrive en renfort. comprendre nga. Mm. donc jeunesse yi boo xoolee li fi xew ci kaaw Sonko. Mm. Euh, waa Jamaïque ak waa Indo nañ daan doxalee donc waa Indo mosuñu woon gëm ni lii c'était possible quoi est-ce que comprendre nga. parce qu'ils n'ont pas été forgés formés ah ci loolu quoi léegi nag le dernier verrou. Mm. a sauté est-ce nga. donc léegi président Sénégal dina ni lii. waa pouvoir justice ne leneen. leneen mm. et c'est beau pour notre démocratie. Aha. très bien tey jii président Macky Sall danaan le 24 sunu justice ne trente 31. diggante 31 altine talaata la nelaw xaju ci. nelaw xaju ci <laughs> jël suñuy démb ak suñuy Dakar. <laughs> te dem ca élection yi jeex na. Mm-hmm. Mm-hmm. conseil constitutionnel. depuis bi ñu commencé process ba fi ñu ci toll. li ko ci aidé ba mu yegg si ci conscience bi nga xamante ni ñu bëri ñu koy saluer. pour la première fois ci li ma fekkee ñaañu euh, ñu en tout cas conséquence ci lii lu mooy ci processus parrainage beeg yooyu waxuma spolier yeeg yooyu ko amee ci rendre décision ci fi ci toll ne est-ce que jàpp nga ni satisfait si bi Siré euh, di junju que cette fois-ci mën nañ leen tàjju. dañ fi bokk émission euh, Amath Siré. ci euh, su ma juumul début d' année bi xaw ma mm. dernier numéro avant ñuy dugg ci ci année bi. et boobu moom mi ngi wax ne euh, xëy na ñun ñoo yàqamti mais conseil constitutionnel bi mu gis moom. Mm. dina dina dina écrire l'histoire mm. dina def de telle sorte que. réew mi ci li ñuy yaakaar ñu nar a dem ci ay guuta ñun ñoo yàqamti mais su jotee à temps réel dina. wax dina war a boppam waxee. Ah. foofu la foofu la sama xel demaat bu muy wax sànq ak bi may dégg la décision du conseil constitutionnel. Oui. yi ñooy wax. et puis ñun également journaliste ñu ngi ci plateau. peut-être hmm. qu'on est impatient ñu bëgg xam ah président wax na lii. de l'autre côté on nous dit ça ñu ngi dégg euh, ay écho fii et fa. Hmm. donc je pense que à un moment donné les gens étaient en train de se dire est-ce que finalement. Hmm. li ñuy euh, wax politique yi. di étiquette boo xam ne dañ leen koy tegal ci chaque fois ñoom seeni i bopp seen i mbir seen i intérêt lijjanti hmm. conseil constitutionnel ndax duñu ko yóbbaale foofu hmm. donc ñu ñu ñu wax ko ñu dégg ko de façon audi ou pas les gens dañuy doon xalaat loolu itam ndax conseil constitutionnel tollul foo xamante ne hmm. président war na mën a wax ñoom ñu def décision boo xamante ne day favorable euh, ci li président bëgg donc bu ñu demee ba conseil constitutionnel boobu ak wax yi am ak ŋàññ bi du tontu. du du wax boo xamante day ñëw di indi euh, weddi tuuma ou pas. mais li nga xamante ne mooy liggéeyam ak prérogative am damay laajte sax quelque part est-ce que les politiques yi wax nii ñu si bëri ñu ni man. Ah. les prérogatives du conseil constitutionnel ci li mu warloo yëpp est-ce que xam nañ ko. est-ce que mm. maîtriser nañ ko bu fekkee dañuy wax rek ne bu ñu déggee conseil constitutionnel lu ci ëpp ci ci élection la. ci élection waaw donc. yu ci bëri ci lii nga xamante ne nii euh, situation bii nga xamante ne gouvernement bi génn dugal nañu ci. Hmm. maanaam dem nañu ba euh, gis nañu conseil constitutionnel ci xar kanam boo xam ne nit yi maîtriser wuñ ko hmm. la même façon foofu la ñu yóbbu aussi ak DGE. Hmm. ndax poussé nañu nit yi ñu xam lan mooy euh, ay mission am. lan mooy mission Sénat lan mooy mission tel et tel. donc loolu noonu buñ ko gisee tey ci conseil constitutionnel boo xamante ne nii man damay ne <laughs> ay ay ay ay magistrat ay kilifa yoo xamante ne nii. Pape Ousmane dañoo liggéey ba ba fégal. waaw dañoo retraité. Ah, ah, ñooñu moo tax ñu leen euh, wooyee sage. ñooñu bu bu ñu leen bëggee corrompre ah du ma ne ku ñu corrompre si àddina mm-hmm. amul. mais dama ne euh, boo xoolee seen jaar-jaar ak li nga xamante ne am nañ ko. Mm-hmm. ay nit yu jaar ci yoon ak yeneen casquette yoo xam ne gis nañ ko damee ne euh, yaakaaruma ne am na loo xamante dina leen ko jaral ba ñuy gàqal seen.